moo di ñu gis lu ko niru rek su amoon ndaw yu góor-góorlu yoo xam ne gouvernement bi dimbale na leen ñu commencé liggéey buñ ko waxee ñi ñu gëm ko buñ ko waxee ñi ci dem ci gaal gi dañu gëm ko waaye wax waaye duñ ko mën a gëm gis nga ndaw yi xaruwunu dañoo xataraayu are xaroo xataraayu du benn de ki xataraayu fépp bàyyi ma damay waaye bàyyi ma waaw kay kook dafa xataraayu waaye ki waaxu dem ca déega ne damay dee man mënatuma ci àdduna dara kooku moo bëgg a dee waaw innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imri ma nawa jëf yëpp a ngi ci yéene kenn ku ne li nga yéene ngay am donc ñoom loolu la ñu kon nañ leen dimbale ndaw ñi wuutal leen am xëy mënuñu wuutal ñëpp am xëy ñëpp mënuñu leen wuutal xëy waaye nañ wuutal ñenn ñi xëy ñi ci des mën a muñ waaw ah gannaaw kat wax nañ ñee liggéey xëy na kon danañ jox nañ muñ waaye joxuñu leen euh, liñ commencé woon mooy ay lan ak lan ah, yu kenn xamul waaw yooyu yooyu kenn xamul lan la nañ leen wuutal xëy bu doon juróomi xale sax ñu wuutal leen xëy mu leer ñu ci des man cee sukkandiku waaw man cee sukkandiku muñ waaye nag xale xale lañ te bi ci des seen wuyu juri ànd nañ ci ñi nga am na ci ñoo xam ne seen wuyu juri jaay seen i kër ñii seen way jur jaay seen terrain ñii seen way jur a teggi seen natt ñii seen way jur jaay seen oor jox leen ñu dem waaw am na ñu yegg xanaa ñu dañu xaru. pour dëggal wax sax dañuy wax ne xale yooyu bëri gaal liñ daan jël di dem di nappi ji mu léegi mënatuñoo am dara ci géej gi te xam ne loolu rek lañ amoon comme activité moo tax léegi ñu jël gaal yi pour yaakaar ni Europe rek la ñu war a mën a dem pour am fa li nga xamante ni mënatuñ ko am. <laughs> foofu lañ mën a dem kay pour am fa lañ bëgg liñ bëgg rek. gannaaw mënuñu ci mënatu ko am fii xam nga àdduna dafa métti suñu réew mii dafa métti li ci tane muy nañ dimbali nii mu ñu ñii rek moo gën mënuñoo boole dimbali ñëpp buñ leen dimbali ñu ñëpp ñàkk ñe dañuy dimbali ñii muñ loo ñii waaw euh, société yi waxoon naa leen fu bu yàgg-yàgg wax naa leen nee naa leen entreprise yi rajo yi société yi benn bu ci ne ku ne la nga àttan ci xale na nga ko jël président woo su leen ñëwee ñoom ñëpp ñu daje mu ne leen waaw yéen dama leen di ñaan ku ne loo àttan mën koo jël ci xale yi rajo bii ne télé bii ne mën naa jël nangam rajo bii ne mën naa jël nangam société bi ne mën naa jël nangam entreprise bi ne mën naa jël nangam ñoo ñëpp ñu recruter leen ñu ko commencé liggéey li ci bi jéem koo régler loo régler mais loolu buñ ko defee mu sotti waaye duñ ko def duñ ko def parce que euh, boo leen xalaatalee duñ ko def di am réew ko ca bokk sañ caa jox xalaat ku ca bokk sañ caa xalaat gannaaw ci réew mi laa bokk sañ naa ci jox xalaat mais xalaat boobu buñ ko buñ ko toppee dana baax waaw dana baax voilà